nuyu nañ leen jaajëfal leen mbokk yi nga xamante ne seen yéen a ñuy teewlu ci seen bi biir IYAT TV di leen wax nag ngeen abonné képp koo xam ne abonné go ñu ngi lay invité nga abonné ci seen bi tey nag dañoo am benn jàngat boo xamante ne si ne moom lañ war a ñëw euh, développé ci tuuti rek par rapport ak li nga xamante ne si ne mi ngi am ci euh, li nga xamante ne si moom moo di réewum Sénégal loolu nag moom moo di gis nañ benn acharnement bu mag a boo xamante ne si ne mën nañoo wax ne. ñu ngi koy teg ñii di groupe de presse bu Walf loolu nag mu nekk loo xamante ne si ne dañuy dellu tuuti ci ginnaaw ci histoire Walfadjri ba noppi it doog a ñëw indi ci li nga xamante ne si ne moom moo nekk di xew ci jamono ji ci diggante euh, groupe de presse bu walfu ak gouvernement bu Sénégal waaye nag particulièrement justice loolu nag mu nekk loo xamante ne si ne dañ cee bëgg indi li nga xamante ne si ne moom moo di ab jàngat bu yaatoo yaatu liñ ciy njëkkee moom moo di dañuy commencé ci kan moom moom kan moom moom li nga xamante ne si moo di groupe de presse bi nga xamante ne si ne moom moo di Walfu waaye itam yenn relation ak yenn rapport la mas di jëflanteeg ci ñi nga xamante ne si ne ñoom ñooy gouverner Sénégal depuis 1960 ba jamono jii ñu nekk nii. loolu nag moom moo di ki nga xamante ne si ne moo di Sidy Lamine Niass buñ ko commencé ci moom rek da ngay gis ne. ñi nga xamante si ne ñoom ñoo ko fi wuutu ginnaaw ba nii rek lañ mën a def waaye itam seen diggante ak état bu Sénégal du mën a neex benn yoon li ci njëkkam moo di ku nekk xam na ne kii di Sidy Lamine Niass buñ delloo ci 2011 moom dafa nekkoon koo xamante si ne euh, par rapport ak euh, li nga xamante si ne euh, maanaam amee woon na ko muy groupe de presse bi nga xamante si ne moo di Walfu dafa doon wàcc sur le terrain mais mais tamit di mane ay combat yu mag a mag pour Sénégal daal di am démocratie waaye itam jamono boobu it jàppoon na ne ki nga xamante ne si ne moom moo di euh, président Abdoulaye Wade dafa nekk di salfaañi li nga xamante ne si ne moom moo di institution yi waaye itam di salfaañi li nga xamante ne si ne moom moo di liberté ak démocratie loolu nag yóbbee woon ko mu nekkoon ci komba ci diggante mille 2010 ba mille 2011 mu jàkkaarloo woon ki nga xamante ne si ne moom moo di. Euh, gouvernement bu ab Abdoulaye Wade waaye itam ak ki nga xamante ne si ne moo di président lay Wade waaye itam ku nekk xamoon na ne kii di Sidy bi muy xeex dafa àndoon ak ki nga xamante ne si moo di président de la république Macky loolu nag li tax ñu leeral ko nekkut sujet bi sax mais li tax ñu indi ko mooy dañoo bëgg kat sénégalais xam ne li nga xamante ne si moom moo nekk di am walfu ci jamono ji arrestation yi mën nañoo wax ne nekkut lu bees ndax kat dafa nekk loo xamante ne si dafa commencé woon ci. Euh, ki nga xamante ne si ne moom moo fonde walfu ki nga xamante ne si ne moom moo sànci Walf mën nañ koo wax buñ ko mënee waxee noonu mais tamit mu nekkoon koo xamante ne si moom Sidy Lamine Niass bépp assornement gouvernement boo xamante ne si ne toog na fi daal dina koy teg ci ay injustice yu métti mais tamit ci ay situation yoo xamante ne si yu méttee métti ci la ko Sidy Lamine Niass doon dundee malgré yi nga xamante ne si ne jaar na fi yu bëree bëri. mais itam ku nekk xam ne ni kii di Sidy Lamine Niass moom moo njëkk a jël jot ab arrestation fii ci nguurug président Macky Sall ci ñi nga xamante ne seen ñoo doon xeex waaye itam mu àndoon a kii di président Macky sàll di kat ngir xeex boobu kat mu jàpp ne démocratie fi lay jaaree daal di ñoŋ ba faaw ci réewum Sénégal mais liñ ci gis moom moo di kii di Macky Sall bi nga xamante ne seen falu na Sidy Lamine Niass sacrifice yi nga xamante ne seen defoon na ko yépp ngir xeexal Sénégal ginnaaw ba mu faloo ñu gis ne ñim àndaloon ñu ci bëree bëri kii di président Macky Sall daf leen woo daal leen di jox ay poste moom Sidy Lamine Niass muy continuer di rester fi nga xamante ne si fi la nekkoon muy côté population bi mais itam daal di jël li nga xamante seen moo di groupe de presse bi nga xam seen moom moo di Walfu daal di koy ci côté population bi mais itam mu nekk loo xamante ne si ne fi la population bi di jooytoo seeni jafe-jafe ak seeni li nga xamante ne seeni kat mënuñu mënuñu koo ñàkk waxte amuñ fu ñu ko waxee nga xam ne kon lii di groupe groupe de presse bu Walfu dafa yàgg sacrifier boppam mais tamit kii nga xamante ne seeni moo di Sidy Lamine Niass moom it dafa yàgg sacrifier boppam ngir kat Sénégal dal di am démocratie waaye itam Sénégal am liberté li ñuy wax liberté d'opinion ku nekk mën a wax xalaatam mais itam fexekat ba kuy wax xalaatam tamit nga am foo xamante ne si ne fa ngay mën a joytoo say mbir lii moo indi groupe bu mais loolu lépp nag ñu gis ne kat Sidy Lamine Niass lu bëri bëri ngir kat Sénégal mën a aw yoon waaye itam am ñoo xamante ne si ne ñoom la loon xeex ko mën nañ cee jël président Macky sàll mi ak ñi àndal mais bi nga xamante ne si ne toog na daal di bëgg a jël réew mi tourné ko ci beneen domaine boo xamante ne si ne bokkut ak li nga xamante ne si ne jàpp nañ ne moom la diggoon Sénégalais yi ba Sidy Lamine Niass daal di ànd ak moom di xeex Sidy Lamine Niass wëlbatikuwaat di ko opposé wuwaat liñ ci seetlu moom moo di ginnaaw ba kat lañ jël justice teg ko ci ki nga xamante ne si moo di kaw Sidy Lamine Niass ba mu jotoon ci ay arrestation ginnaaw ba nag ñu mujjoon ko libéré. lii moo mooy li nga xamante ne si ne kat moom bëggoon nañ koo indi ba pare doog ñëw ci li nga xamante si moom moo nekk di xew walfu ginnaaw ba it biñ demee ba àgg ci li nga xamante si ne moo di 2018 ginnaaw ba yàlla daal di def li gën mooy Sidy Lamine Niass bàyyi koo fi woon ginnaaw li nga xamante si ne moom moo di groupe de presse bu walfu lii nag benn euh, kii bu ndaw la woon rek boo xamante ne si ne que dañ ne woon danañ ko indi doogu ñëw ci li nga xamante ne ne moom moo nekk di xew Walf waaye itam dëppook actualité balaa boobu nag ñu di la wax ngeen abonné képp koo xam ne abonné go ñu ngi lay invité nga abonné ci chaîne bi li nga xamante ne si ne nag bëggoon nañ ko wax ci li nga xamante ne si moom moo nekk di xew Walf ci jamono ji moom moo di ay arrestation yoo xamante ne si ne mi ngi fi am mën nañ cee jël bu ci mel ne Pape Ndiaye bi nga xamante ne si ne euh, jamono yi yëpp mi ngi ci kaso bi waaye itam beneen naataangoom wuutu euh, fekk ji ko fa ñi di ko woowee Coro Mandela ñoom ñaar ñëpp nekk ci fi nga xamante ne moom moo di euh, Walf ginnaaw loolu nag ñu daal di dégg ki nga xamante ne moo di directeur bu Walf muy Moustapha Diop mi nga xamante ne jamono ji moo nekk walfu ñu daal koy yónnee ab convocation boo xamante ne kat jamono ji ñu ngi koy tasaare di ko partagé. mu mel ne kat alxames bii nga xamante ne si moom la ñuy dëgmal dafa war a wuyu ji fa nga xamante si ne moom moo di commissariat loolu nag nekk loo xamante ne si ne ba jamono ji ñuy wax ak yéen amut kenn koo xamante ne si ne mën naa wax ne kii di Moustapha Diop lii lañ koy toppee mais sénégalais yu bëree bëri dañoo njort ne kii di Moustapha Diop bu demee dañ koy téye ndax kat ñoom seen plateau yi débat yi nga xamante ne si ne ña ngi ko fay amal wala programme yi nga xamante ne si ñu ngi ko fay faral di def dafa dëppoowut ak li nga xamante ne si ne moo di bëgg-bëgg ñii di gouvernement bu Sénégal mais itam ki nga xamante ne si ne mooy Moustapha Diop moom ci boppam ba fi mu toll nii xamut li nga xamante ne si ne moom lañ koy toppee mais léegi question bi nga xamante ne si ne ñu ngi koy laaj bu moo di est-ce que groupe de presse bu Walf ñoom dañoo nekk ci ay crimes yoo xamante ne si ne dañ koo condamné fii ci réewum Sénégal wala itam dañoo nekk di def loo xamante ne seen dañuy influencer nit ñi pour ñu daal di indi fi ab violence wala itam dañoo nekk di def loo xamante ne si ne loi bu Sénégal def koo tere lii mooy laaj bi nga xamante ne si ne ñu bëree bëri ñu ngi koy laaj ndax jamono ji gis nañ ñu bëree bëri yoo xamant ñoo xamante ne si ne ñu ngi nekk ay journaliste nekk ci yeneen groupe de presse jamono bi waroon naa fekk ñu ñuy am lanteeg yoon mais ñu may leen li nga xamante ne si ne moom moo di liberté provisoire ngir kat mooy bàyyi ndigganiku ngir ñu daal di dellu ci seen famille mais itam di mën a continuer li nga xamante ne si moom moo di seen liggéey est-ce que xam ngeen ne it lii di groupe de presse bi nga xamante ne seen moo di euh, TFM ginnaaw ba nga xamante ne seen it nekkoon nañ euh, ci jamonoy élection présidentielle yu 2012 ñoom groupe de presse bu euh, bi nga xamante ne moo di TFM ak seen ki nga xamante ne seen moom mooy patron bi muy Youssou Ndour ñoom ñoo nekkoon premier opposant bu Ablaye wadd mais itam di ko xeex ba pare nag daal ciy dépensé ay moyens yu bëree bëri mais itam gis nañ ne bi nga xamante ne seen kii di président Macky nay falu lim njëkk a def moo di xëcc ki nga xam ne moo di Youssou ci wetam mais itam ñi nga xamante ne seen it ñoom ñoo di TFM ku nekk xam na ne jamono ji ñoom seeni condition dafa ma sëkk loolu nag bokk na ci li ñu jàpp ne moom moo waral ki nga xamante ne moom moo di ab journaliste nekkee ci fa nga xam si ne moom moo di GFM bu yëgut da na dawal fii ba mbëkk benn doomu aadama ñuy wax ne sax kooku li tax mu mbëkk ko mooy bi mu dawal dafa teqalikook sagoom waaye itam jël loo xamante ne si waru koo jël di dawal loolu tamit am loo xamante ne si ne moom la fi loi bu Sénégal prévoir mais liñ ci mujjee gis moo di yoon da koo mujj libéré mu daal di ñibbi këram mais itam mi ngi toogaat ci palaato yi di wax li mu bëgg a wax léegi nag lii lépp bu dajee ba pare ñu daal di gis kat ñu daal di jël justice ñu daal di jël justice bi daat koy teg ci kaw ñi nga xamante si ne ñoom ñooy groupe de presse bu walfu gis nañ fi bu yàggut ñu dagg jour ñu dagg euh, signalu walfu dagg ko diir bu yàgg-yàgg mais itam gis nañ ne publicité yi nga xamante ne si ne ngi koy joxe walfu mooy ki ci gën a néew ay publicité naka noonu tamit gis nañ ne jafe-jafe yi nga xamante ne si ne condition yi nga xamante ne si ne ñi ngi koy dundee fii ci réewum Sénégal seen digg ak état bu Sénégal xaw naa am ay ñagas-ñagas lool mais itam gis nañ ne it duñu leen pardonné dara jamono bu nekk sax dañuy seetlu ne ñi nga xamante ne si ne it ñoom ñooy gouvernement bi dañuy bëgg journalistes yi nga xamante ne si ñoo nekk walfu ñu am benn njuumte lu ndaw bañ jël loolu daat koy utiliser ci ci fi nga xamante si moo di justice daat leen di daan ndaxte loolu kat réalité moom moo ko wone ndax gis nañ journalistes yi nga xamante ne si ne daal nañ leen di tëj ci kaso bi mais itam kenn pardonné wu leen dara loolu nag nekk loo xamante ne si ne mbir la mu doy a doyag waar mais itam sénégalais yi itam am loo xamante ne seeni it moo ciy nekk seeni rôle ndaxte fu bu nekkee ci jafe-jafe yi wala seeni journaliste nekk ci jafe-jafe yi li nga xamante ne seeni ñu ngi koy def mais itam féete ci côté population bi moom moo leen yóbbee lii lépp ndaxte tey jii bu fekkonte ne dañoo bokk ci média yi xam nañ leen di woowee média propagande mais itam di promouvoir li nga xamante ne moom moo di état bi mais itam di influencer li nga xamante si moo di état bi loolu kat bu boobaa mën naa am ñoom dinañ nekk ci condition yoo xamante ne si ne conditions yi mucc ayib lay doon mais itam biñ gisee ne kat ñoom kat toujours dañuy rester ci côté peuple bi boobu lañ nekk ci ay jafe-jafe ba jamono ji nga xamante ne si ne wala fa amul benn gouvernement bu fi ma a nekk fii Sénégal boo xamante ne si ne maanaam may na ko jàmb ba jamono ji ñu nekkee nii loolu nag nekk loo xamante ne si ne sénégalais bu nekk da nga koo war a jël jàppee ko ne sa combat ndax kat jamono jii ci boppam man des fois damay faral di wax ne ki nga xamante ne si ne moom moo di Sidy Lamine Niass bu fekkonte ne dafa nekkoon ci yeneen réew yi européens ñoom jamono bi day fekk dañ koy màggal maanaam chaque année mais itam di ko sargal ba ñëpp xam ne kat Sidy Lamine Niass benn référence la woon bu mag mais itam groupe de presse bi nga xamante ne si ne euh, wocc na ko fi bu fekkonte ne dañoo nekk ci réew moo xam si ne réewum démocratie la mais itam réew moo xamante si danañ respecté ak nit ñi mais itam yëg nañ seen population groupe de presse boobu dinañ ko euh, tegkat mu nekk ci le meilleure condition yoo xamante ne si maanaam ñëpp kat dañ xam ne groupe de presse bi daf fee nekkal ñi nga xamante si moom moo di population bi mais gis nañ ne groupe de presse yi nga xam si ne ñoom ñoo fare ci côté nguur gi wala ñoom lañ jàpp ne ñoom ñoo fare ci côté nguur gi ñoom ñoo gën a nekk ci sécurité ci ci nga xamante ne si ne ñoom ñoo fare ci population bi ndax la preuve gisee yeneen groupe de presse yi bu fekkente dañ fa invité ñeneen da ngay gis ne vie yi ñu am ak audience bi ñu am day néew noonu ñu gis ne jamono ji li nga xamante seen moo di groupe de presse bu Walfu moom moo ëpp audience fopp yeneen groupe de presse yi nga xamante ne si ne ñoom ñoo nekk ci réewum Sénégal loolu nag dafa am symbole bu rëy rëy boo xamante ne si ne moom lay wone mais itam ñu fàttali leen ne dañoo jëm ci ay euh, mbir yoo xamante ne si mbir yu am am solo la ci Sénégal mais itam Walfu yàgg cee am ak taxawaay muy li nga xamante ne seen moo di élection présidentielle yu 2024 yi moo tax léegi-léegi buñ xëyee ñu ne que tëj nañ groupe de presse bu Walfu définitivement loolu bu mu bett kenn ndaxte fii chaque élection dañuy gis ne ñu bëree bëri sax Walfu la ñuy dem di seetaan résultats yi di diglu parce que gis nañ ne kat chaque élection résultats yi saa yu amee ay jafe-jafe da gis ne ci yeneen médias yi lay jógee mais da ngay gis ne tamit Walfu résultats yi nga xam si ne mi ngi koy joxe day xaw a wuuteeg yi nga xamante ne si ne ay RTS ak ñeneen ñi ñu ngi koy joxee ndax ñoom jamono bu nekk kat ñoom dañuy indi ay résultats yoo xamante ne si ne mooy résultats yu ñuy fabriqué la moom moo ciy ëpp. lii nag moo nekkoon li nga xamante ne si ne bëgg nañ leen koo digtal mais itam mu nekk loo xamante ne si situation yu doy waar la mais itam nekk loo xamante ne si ne bu nekk def cee war a jàpp ndax kat arrestation yoo xam ne si ne ñu ngi koy def ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkee ci groupe de presse bu Walfu. loolu ka nekk na loo xamante ne si ne mbir mu doy doy gu waar la mais itam nekk na loo xamante ne si ne mën nañoo jàpp ne nekkut image boo xamante ne si ne image bu normal la looloo taxoon ñu ne woon nañ ñëw àddu ci di leen wax na ngeen abonné bu baax a baax a baax képp koo xam ne abonné ko ñu ngi lay invité nga abonné di leen jox dig daje ci yeneen actualité wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu